yonent bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam di leen ñee ci li leen yàlla defal ci gàttal yàlla may xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu am weeru koor ci biir woori koor yi ñu am ci bés boo xamante ne dégg nga min alfi sahri dégg nga wala ëpp xéewal kooku yàlla mayoon jaam ak yàlla boobu ñu mooy lan mooy guddi gi nga xamante ne si la yàlla di faral fàccee yëfam yi moo tax naar bi xool bàyyi ne kon yaay guddi gu lëndëm googu ba kenn la sa borom waaye yow yaay bëccëg ku ne daan na ba ku ne dégg nga xam ne sa borom kon guddi googu Mawlana Cheikh guddi googu nga xamante ne si la yàlla di tàqalee si la yàlla di faram-fàccee xaalam bi si la yàlla di faram-fàccee xaalam bi guddi googu ci boppam te xaalam bi yëpp xaalam bi yëpp xaalam bi yëpp jëmmi doomi aadama rek la waaw jëmmi doomi aadama rek rek rek mooy kulli aadama bëgg naa waxtaan nag sama sama baat naa bàyyi ma xaalis bu ma waaye lii de lañ bëggoon dajee yéen xool leen yéen xool ñu tëggoon leen fàttali suñu ànd ñun ñëpp ci ànd ki ànd ak kii jotaay bi bu fekkoon ne dañ koy daje rek pour fàttali ko ànd ki ànd ak Cheikh Bara Niass bay na sëkk ndax léegoo léeg jamono yëngatu yëngatu yëngatu mën a fàtte saalum saalum ci seen war ngay daw di utaat di créer proximité pour mën a fàttali ko ne am nga magistrat ci nit ñi xamul lu mu doon ci guddi gi jageeg baay balaa fajar di sax jëkk-jëkk guddi googu mooy Mawlana Cheikh damay wax ne doomi aadama ci boppam su bàyyi noonu bu bàyyi ñëwut woon bu bàyyi ñëwut woon ma xam ne yàlla échec na wala fajje na adduna bi ci lu taxoon mu bind doomi aadama ndax doomi aadama damay wax benn wax ne bu fekkoon ne ay yàlla dafa am yàlla ju nekk ñu am benn foire boo xamante ne yàlla yi dañoo war a yóbbu seen exposition ku ne war a exposé na gën a màgg moom suñu yàlla jiñ am mooy àllay ne laa ñii naan ko góor ñii naan ko jër waaye olof moo gën a dégg yàlla olof dañ ne ko ana yàlla mu ne lu yàlla lu yàlla moo tax olof moo gën a dégg yàlla moo gën a mën a wax ci yàlla xoolal ci jàkka mu ne fa nga jàkka yàq wax ci jeexul jumaa mu ne ju mag ja ju gën a mag ja nga laaj ko sa borom mu ne lu yàlla ba tey indiwul benn signification lépp lu signifié rek du yàlla. Hmm. daal di ànd max bi xëy na wax ak yéen. loolu nag ku nit ñi ñu nekk buñ tajewuloon ak saanum saanum. nit kon bëccëg du set. am na ñoo xam ne ñu ci biir guddi googu bëccëg balaa moo set ci ñoom ñu dajeeg saanum saanum. Ah, ah. Cheikh Ramis ñëw woon ma xam ne diine manqué na islam suuf yi dana manqué moo tax Serigne Aliou wax ko ne ko bàyyi wane daf ne ويلك أفلت نجوم الهدى صحر القلوب والمطائرة بالفنان نور السماء kii moo tax nit kon ma wax. waaye li nga bëgg a wax am ngeen ko. li ma leen bëgg a yokku fa ngeen ne. man man sama noppi sax pour yéen wax la. ñeneen si gis rek di xaar sama wax. nañ ñeme kër gi rek. ndax Cheikh Cheikh yaa ngi gis yàlla Tijaani daf ne Tijaani yi kun aabidan lillah doo leen jaamu tamit yàlla xasdan ne wati yi jublu ci jëmmi yàlla jéem bila xawfi niiraane wala xawfi jannatin ajjana bu mu tax ngay ut li ngay ut Tijaan bu mu ajjana Tijaan du ragal safara damay dégg gars yi naan ragal leen yàlla yàlla kenn du ko ragal yàlla da koy bëgg yàlla boo ko ragalee doo ko kula tuddee ko doo bëgg ku la won lu ko jege waaye soo ko bëggee waxtu wu jot nga bëgg ku la wax yëfam baa nga jege lu ko jege baa ngay créer situation yu la ko jege moo tax góorgóorlu leen góorgóorlu leen góorgóorlu leen ngeen xam ne tey xool si adduna bi nit ñëpp ngi taxaw di xas sëriñ si te wax naa fi si télé ma invité 7TV dañ na bëri émission bi ñaar laa yëkkati te journaliste yi ñëwee wu ñëw xuus moo tax ren ñi ma invité seen yëpp dew ma man dew ma télé pour buzz dew ma télé pour ñu déglu ma o dem télé pour laaye biir dew ma pour cohabitation damaa dem pour dimbali yàlla tax soxla wu ma dem ci dañ ñu

soo leen calculé seen i seen quatre vingt dix neuf virgule nangam pour cent yëpp ci insouciance la ñuy loolu laa yëkkati débat télé journaliste yi taw kenn mu taxul si débat bi ma bàyyi loolu mu laaj ma ci corona ma ne ko sëriñu Sénégal yi ñu bëgg ñu bëgg ñu bëri ñu ëpp ci ñoom ñoo gën a garaaw corona. dañu war a def ci ñoom dañu war a def ci ñoom prévention. dañu war a ci ñoom jàngat dañu war a ci ñoom lu bëri gën a wax bi ma ko waxee si télé bi journaliste yi daw débat boobu ma bàq ma xam ne comme que télé yi ñëw moom daa am lu leen tax a jóg te ñu farataa ñu tax a jóg ñu bàyyi leen ak seen télé ñoom business moo leen tax a jóg te ñun nekkuñ ci business bàyyi dimbali nañu ba yàlla rek a ñu kese kese kese kese su tàmmul woon ci sunu bakkan yi dund di daay soxlaa fi kalaar créer leen débat yi ci digg kër yi ngeen xam ne yàlla dañ koy tàmp créer leen débat yi ci quartier yi ñu xam ne sëriñ xam yàlla lañ koy toppee moo tax Cheikh Tidiane ci boppam moo wax ne sëriñ soosu nga xamante ne ñëw corona ñoo yem Cheikh Tidiane da cee teel a wax ne na ngeen am méfiance xam ne li ngeen di ut ndax am na ñoo xamante ne dégg nga duñ ci dara man lam yakun xadaran wa za basiratan tamma mu teeyul amoo méfiance Cheikh Tidiane nee na ragalal naa la nga wadd ci loxo wootekat yi nga xamante ne dañuy fen wa yajmau indahum abu zalaami ay innocent ndeysaan wër leen wa yaxsibuuna annahu yaxsinu san am ñu yaakaar ne ndeysaan ñu ngi ci yoon Cheikh Tidiane ko wax Cheikh Tidiane ko wax kon ñun amul dara lu fi wax loo xamante ne nekkul ne yonent bi moo ko dawloo nit ñi wala Cheikh Tidiane moo ko dawloo nit ñi moo tax bëgg naa ngeen eewu adduna bii du lekk naan say sol déedéet moo tax ma ne leen Cheikh Bara Niass daf ñëw jëlee ci insouciance moo tax ma ñeme see wax ñi fi toog ci kër yi di làkk tubaab ak takk karawaat ak defar ay sikkim ak du ñu dara ci yëf yi barke baa gis gis nga yéen seen dund la benn bi dund gi dund gi dëgg mu ci loxo Alaaji Maalik li ñu la woon fii dëgg dëgg dëgg dëgg mu ci loxo Saalum Saalum ñi fi génn télé yëpp di woote ay mouvement ñoom ñëpp jéem nañ te mënuñ ci ñun dara parti yàgg na Sénégal te mënuñ ci nit ñi dara sëriñ ci yàgg nañ Sénégal nit ñaa ngi gën a jubali kaamil yaa ngi koy wàññi xale yi xoolal tey lenn la ñu manqué mooy xam yàlla raccourci la wax leen nit ñi lan la ñuy doyee Serigne si Serigne du ñas la sant pour ñu doog doyut du si du taal du mbàkke Serigne mun na doon mel ni yàlla kala ñu raam sant yooyu wax naa leen ne bés buñ ko toppee ci xërëm sant yooyu moom ngeen topp ko tey nag moo leen indi jaaxle gi ngeen nekk góorgóorlu leen bu fekkee ne sëriñ bi xaritoo rek la sa jabar na la doy wala sa yaay wala sa xarit bu fekkee ne liggéey rek la waa doomi milliardaire yi li ñuy doyee sëriñ sëriñ jéem a ñaanal kon doomi milliardaire yi li ñuy xam nga lan lañ koy doyee mooy la Cheikh Tidiane waxoon. Cheikh Tidiane dafa mos a woo ay taalibe ne leen lan mooy mën ku rafet. Hmm. ne teg bàyyi taalibe leen tontu bi mu ne leen xam nga lan mooy mën ku rafet ñu ne teg mu ne ah Aboubacar dañ ko rey Omar Ousmane Ali ak wali yàlla ne leen dañ leen rey kii dañ ko gor kii dañ ko rendi kii dañ leen pendre nangam ñi gën a baax ci àdduna bi ñii ñu rendi leen ñii ñu suul leen ñii leen ñii ñu bes bañ. xool ñu suul leen te teewul ñii ñu lakk leen mais nit ñu baax noonu demee noonu xanaa ñu ngi wax ne mujj bu rafet ñooñu Aboubacar amul ko ñu ngi wax ne wala wala wala Ousmane amul mujj bu rafet léegi nag Cheikh Cheikh Tidiane ne lan mooy mujj bu rafet kenn mënut a am question yi mu ne booy génn àdduna xam ne huwa al-awwalu huwa al-aaxiru huwa az-zaahiru huwa al-baatin nga xam bu bëgg a xóot ci sa xol balaa ngay dee nga xam lan mooy xul wallaahu ahad lan lay tey xul wallaahu ahad mooy gànnaar ca yàlla te mosoo leen gis yàlla xam nga ne fu mu dëkk xamoo ne nu mu toll xamoo ne nu mu mel yéen ñëpp yéen d'accord ne xul wallaahu ahad mooy gànnaar ca yàlla foo leen ko dégg billahi xul wallaahu ahad mooy gànnaar ca yàlla yàlla daf ne yonent bi daf ne ko gars yi danañ la laaj mbay kan xaaral ma wax leen lan mbay kan allahu ahad yàlla kenn la waaye du lenn nag du lenn yàlla kenn la waaye du lenn mu ne ko allahu samadun mooy ki ñëpp fekki waaye fekkiwul kenn moom. mu ne ko lam yalid jurut te juruñ ko. et que nekkul ak kenn ak lenn luñ koy dendaale ahadul moom rek la. kon kàttan bi yàllaa ngi noonu ahad yaa ngi noonu. naka ngeen di def ak loolu. mën a góorgóorlu leen. su fekkoon ne. nit dina pare si course taalibe bàyyi pare nañ ci course su fekkoon ne nit dina pare ci tariqa taalibe bàyyi pare nañ ci tariqa tijaniya bu fekkoon ne nit dina pare ci diine taalibe bàyyi pare nañ ci diine li tax ñu jël si yéen lañ bëgg a jël si yéen lañ bëgg a jël si moo tax ñu jël si ku diis du dem ku diis du dem ku diis du dem ku rëy du dem ku gestu ñu am li may wax lu am solo la wax naa leen ko ay at yii passé ma ne leen mairie kaa fal jox ko suñu budget pour lan ngeen di dagg ñepp ko pour lan bitig yëpp di fay ba ci table yi ngeen di fay pour lan mu buubal leen seen mbali ci koñ yi daal leen lamp dëkk bi loti seen leen dëkk bi waaw bu fekkee ne yow sëriñ bi li nga ko jox impôt la te sa lamp xel yi taalu ko sa lamp xol bi taalu ko sa baritu xel baa ngi ci sa baritu xol baa ngi fees del yàlla ko ñëpp mu ngi yërmu la sa xol bi setal ko lu ma ci seen bu ma dugg te bu ma duggee lu ñëw ma génn yow kon yow yow yow sa impôt bi ngay joxe war ngaa laaj ma kii ma jox sama impôt bi pour lan la. yëf ji soriwut yëf ji soriwut sëriñ xam yàlla lañ koy toppee génn leen kiiraayu sant yi génn oto yeeg kër yi li ngeen soxla kenn nag ko amee muy Alaaji Ibrahima Niass mu neex ak mu naqari leen islam tey kenn lañ am muy bàyyi islam suufi kenn lañ am muy El Hadj Ibrahima taraka tijaaniya kenn lañ am muy El Hadj Ibrahima moo tax yéen war ngeen sant yàlla dégg nga dox gi dox ba yàlla may ñu dégg nga Mawlana Cheikh Ibrahima ñun waxuñu xam-xam ndax xam-xam bi ci biir nit lañ koy wax ak ci biir kër gi. kuy topp rek léegoo leen nga ubbi cin bi mu saxaar pour nit ñi xam ne ñu ngi topp. wala ma dem ma xam sax li ñuy togg lan la nga mën a xaaraat waaye nekkut ne ba tey li El Hadj Ibrahima Niass di def ci dënn ci am yàlla yi moom la ñuy dégg du li ngeen di dégg télé du li maj suuf ji di wax li mu doon rek la ko jërëjëf yaa bàyyi. jërëjëf yaa bàyyi. mais ma di wax ne sëriñ ci bu fekkee ne ay passeport lañ yor déedéet dañ war a renouveler seen passeport pour mun see tukki te ku mënta tukki nag du yóbbu kenn te ku mënta tukki du yóbbu kenn sëriñ boo jox loxo tëral na la condition pour jox la li mu amee Cheikh Ibrahima Niass nee na la ñëwal loo bëgg ma jox la ko ci yàlla ci waxtu woo ko bëggee naka nga koy bëggee kañ nga ko fa. dégg ci ñi mu sax xam yàlla ci kaw suuf muy sama loxo sàkku leen ko ko sàkku jot ko Cheikh Tidiane ñëw ne wala yàlla mu dul Tidiane fi mu yem fala sama taalibe yi tàmbalee dem kaw loolu balaa mu laa leen nga ñëw ci bàyyi ndax wala yàlla yi fi njëkkoon mooy xadamal uulal la ti ak naan maratibel fasaki dana ñi nga dégg ñëpp ñi nga dégg ñëpp te ku sa xel dem rek moom laay te Cheikh Tidiane moo wax ne ku dul taalibeem wala yàlla yi jiitu képp ku si dul Tidiane fa nga yem fa la Tidiane yi tàmbalee di dem léegi nag demal leen seeti gars yi fan lañ yem nga xool ndax li Cheikh Tidiane wax wér na wala wér. mënoo ko xam lu dul nga ñëw ci Cheikh Ibrahim ndax ci dox dégg naa muy wax ca ne dégg xam yàlla fi lañ ko la waaye dox ci yàlla mu ci bàyyi la tàmbali xam yàlla fi lañ ko fekk waaw dëgg la yàlla mu ci bàyyi la ko xam yàlla fi lañ ko fekk waaye dégg yàlla xam ne ah! yàlla ay wax ci ah. moo tax Cheikh Tidiane bu waxee ne kunut man ci primaire la taxaw kunut Tidiane loolu képp daal nga Tidiane bu ko nangu rek ci ST nga wax waaye leeru la te képp koo xamante ne nee na Cheikh Tidiane moo wax ne Tidiane ci boppam kunut ñoom fa nga yem la tàmbalee jëm su fekkee xam nga ñoom fu ñu jëm kaay su fekkee ne yow dépassé nga te jaaroo ci bàyyi kaay. lii wax ji lii rek la wax ji lii rek la li ci des nag te ñu moom ko ñi nangu rek dugg ci biir nekk ñu dégg dégg ñi ci mbedd mi amul benn sentiment bu ñuy wax ak ñoom parce que dañ leen war a dimbali. koo war a dimbali di nga discuter ak moom. kon ak daal la bàyyi nañ góorgóorlu xam ñu leen tax a jóg dañ ñoo yónni ñuy dox ñuy dox yóbbante dañu laa yónni ngay dox yóbbante boo tëppee di fa la kii la yónni ñu bàyyi ñoo yónni pour lan. bàyyi mooy naarullahi moo xam. ma yàlla ci yàlla taal mooy saalum saalum. naarullahi moo xam mooy ala ibrahima xam lu tax safara lan lañ koy doyee yéen laa wax safara lan la ko yàlla di doyee. yéen laa wax safara lan la ko yàlla di doyee. yéen tontu leen ma safara lan la ko yàlla di doyee. yéefar mooy ku xamul yàlla. Ah, ah. Cheikh Ibrahima mooy safara si nga xamante ne. mooy lakk yéefar yi safara lakk lañ koy def yéefar mooy ku xamul yàlla yéefar mooy ku xamul yàlla waaye mooy naarullahi muuqada safara si yàlla taal Cheikh Ibrahim Niass mooy keppaar gi yàlla tàllal lan xanaa nit ñi gisuñ keppaar gi ma tàllal keppaar boobu mooy ci lii ñu nekk te mënuñ ko woon kenn mooy ci lii ñu nekk te mënuñ ko woon kenn jërëjëf Baye ñëpp yaakaar nañ ne adduna bi lekk naan ak sëyee sol yokku na diwlin yokku na ceeb ba ñuy dund ba léegi yokk rek la ñuy dégg yal nañu yàlla may njëkk yi. du suñu problème lekk naan ak sëyee sol c'est primaire du suñu problème bu fekkee lekk naan sëy sol mais xaj yeeg golo yeeg nag yeeg bëy yi ci lañ nekk bu ngeen am ak ginaar yi lekk naan sëy sol doomi aadama ak xelam li mu yem sa muus war na laa yóbbee nga xam. sa yonent ci xam sa borom ci sa jamono xam sa yonent xam sa waliyu xam sa xarit su fekkee ne moom dëgg am na ko bu fekkee utilisé nga sa xel dëgg xel dépassé na yem ci lekk naan say sol xel dépassé na ko. moo tax nag tiit gi ngeen di tiital yëpp mooy dañ leen jëmloo ne àdduna lekk la naan say solo ak foo dëkk loolu du àdduna loolu lu ñuy jëfandikoo ci àdduna loolu du àdduna àdduna du kër yi du oto yi àdduna du bâtiment yi àdduna bi du palais adduna bi du banque yi adduna bi du gestionnaire yi du bugg yi adduna bi du du avion yi du jet privé bi adduna ci boppam état d'esprit la adduna ci boppam état d'esprit la adduna ci boppam ay sensation la adduna bi loolu loolu ngeen di gis li ñuy jëfandikoo ci biir adduna la waaye du adduna li ñuy jëfandikoo ci adduna la mais du adduna dañ leen na jëm loolu la derrière oto yi école yeeg immeuble yi palais yeeg zircon beeg pétrole beeg loolu ngeen yaakaar ne mooy àdduna loolu lu ñuy jëfandikoo ci àdduna soo ko amee dund soo ko am waaye àdduna bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu ngi sa diggante sa borom. loolu rek mooy àdduna bi. loolu rek mooy àdduna bi. moo tax góorgóorlu bi yooyu ngeen dugal seen diggante seen borom moo leen indi ba ngeen a am bakkaar daal loolu bakkaar mooy bakkaar képp ku dem nag créé proximité sa diggante seen borom ba ngeen a tàpp amatoo bakkaar amatoo bakkaar amatoo bakkaar xam nga dégg ngeen li may wax dama leen ko fàttali tuuti rek tuuti rek laa leen bëgg a yee tuuti pour ngeen bàyyi xel ci ndax fi mu toll nii dañ leen choqué ci lan zircon pétrole kër yi oto yi lii avion yi dégg nga hôtel yi nga nguur gi dégg nga ñun ñëwuñ ci yooyu ñun loolu buñ ko amee dem buñ ko amul dem il faut ngeen gëm loolu pour ngeen am stabilité mentalement. yes. Cheikh Ibrahima Niass si boppam mosut a xam loolu amu ci dara te teewul il est le plus important moo gën a màgg li mu réalisé Sénégal kenn réalisé wu te doonul maire doonul député doonul président nguur ngeen bëgg yéen bëggoo leen Sénégal gaa yi xëccoo fii bëgg a taal réew mi nguur lañ bëgg mais bëggul Sénégal Cheikh Bara Diass doonul maire doonul député doonul doonul avocat doonul président te li mu réalisé Sénégal ci doomi Sénégal yi kenn xamul noonu yéen nguur ngeen bëgg bëggoo leen Sénégal xaw ma na dégg ngeen li ma wax Sénégal yaatu na fi ngeen bëgg a liggéeyee Sénégal sauvé Sénégal yaatu na le malin ngeen di jaay ma. moo tax góorgóorlu leen kenn rek lañ am tey muy Saloum Sall moom rek la ñu am Cheikh Ibrahima Niass rek ngeen moom rek ngeen am mooy last tour mooy dernier rempart. moo tax bàyyi waxal boppam ne bu ñu demee ba aaxiru rek di def te jëndi taw bi aaxiru mooy Saloum Sall. boo demee ba tey Cheikh Ibrahima Niass amoo ko sa dund da ngay wéet. loo bëri bëri xam-xam boo amul Cheikh Ibrahima si si sa téere bi dangay wér loo bëri bëri alal te amul alal Ibrahima Niass dund gi dafay mel ni summi boo def meew te amul déedéet déedéet am suukar te amul xorom xorom alal yi nga gis yëpp yëpp yi daroo yëpp ñu leen di jaay xam nga seen dund gi lan la summi boo togg ba mu neex def ci meew def ci suukar te amul xorom ñi amul baa yëpp loolu la seen dund gi di sax. dañuy lay napp yaakaar ne damaa bëgg yor yorul dara. tous yorul muy borom xam-xam bi muy ku mën a doon. walil ulama bi ilmikum imtinaanu bihi saaru isa sumilu ajab. كم ندم العباد لما اليه من الياء كانت له انتباه كم احيا القلوب من اين موت كما بالغيث قد احيا التراب loolu la ko bàyyi waxoon mu ne ko yow El Hadj Ibrahima ñaata nga connecté te gisante ko ñaata nga fekk ci yoon wi ba wax leen ñu bay dugg ci xadara yàlla bi ñaata nga fekk ñuy jaamu yàlla ba àgg ci njëloxtanu jaamu yàlla nga fekk leen dolli leen kam ahyal quluba wa ayda mawtin kama bi rayti qad ahyal qurab ñaata xol nga fekkoon ñu dee ba mel ni si seres Cheikh Ibrahima Niass salaatu rahman bi nga taw ci suuf sa defi woon loo ko laaj ko jox la كي سنغال بن سيرن مو في ديس مو لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن قال الصواب يلا جي موم سر الرحمن رك لا تي واخ موتاخ تاي ديغ نا بن جيجين نانا تيجان لا خا مو يينكو سي نان سي تيلي مو ني جيجين ني ديم حضر دا عرب لكن ما بوكو جيجينو حضر دي جين توكو واو man dama ko xool jéppi ko xam nga lu dama kaa xool dèjà moom mu ngi xeesal moom dèjà dafa xeesal doomu sëriñ bi bu ma tudd bàyyi waaye bu waxaatee dinañ tudd bàyyi su génnee waxaat wala magam wax dinañ tudd bàyyi mu ne nañu nag wan ko te ko bàyyam man man man li a tuuti si taalibe bàyyam lu ko a dèjà moom jigéen la mu ngi doon xeesal benn ñaareel bi maa ngi gis moom ko tiim ci néegam te photo bi ci boppam moom muuruwul kon dèjà moom moom moom moom moom apparence rek ab tagul pour wax ci tariqa bi wala ab tagul pour wax ci diine moo tax man mënuma ko tontu parce que dama ko des dama ko dama ko disqualifié ko man léegi nag jigéen ñi nga xamante ne bàyyi defar na leen yéen laa bëgg ngeen tontu ko bu ci góor duggee nag ñu xam nga xam nga dund gi xam nga dund gi kuy ut dara kuy ut dara mooy ut diplomatie kuy ut dara mooy doxal diplomatie mais ku utul dara mais mun am diplomatie moo tax bàyyi mu ne man yéen amul diplomatie wa inni la atasamtahu bi wali man du ma doxal diplomatie sama diggante ko wéy ah, non laay ban kàdda non diiba ku diiba ku diiba diplomatie amul ay xaqaay rek a fi nekk ay xaqaay rek a fi nekk diplomatie amul ci amu ci moo tax góorgóorlu leen man maa ko wax man man maa ko wax benn sëriñ moom benn sëriñ muy alaaji man maa ko wax man maa ko wax jërëjëf sa dëggam yëg fulam yëg faydaam ñu soppi jotaayu baay yëpp raayante neexalante taggante mayante man ba may xale nekk mi dina bàyyi jotaayu baay ñes musul dégg géwél bu ci wax ba may xeet nekk xale dégg joxe na diw diw joxe na diw ndeysaan bu yàgg rek dafa xew moo tax ma tiit ba yow miy wax dëgg bàyyi ji sax yow yaay dof yow yaa rëy li ngay wax yow yaa dul taaliba ba yaa bëggul bàyyi bëgg bàyyi tey mooy lan ñi fi nekk ñëpp bëggul bàyyi nga nangul leen Sénégal képp ku fiy sëriñ dangaa jéem ci bàyyi ba tële nga baax. dangaa jéem ba tële nga baax. coalition bu ne def nañ ko El Hadj Ibrahima mënuñ ci moom maa ne maa dara de xam si wala am sa fii xool ma jàkkaar ak képp loolu ma tax. yes. yes. li fi nekkoon a fi nekk ba tey dañoo jéem ba mënul ci dara génn nañu ci tamit ak tijaan ba sonn la ak ñasee ni ñasee ni ba sonn mënuñ ci dara ñu doom ñoo nangu suñu tijaan yi te ba tey soxla wu sax ñu nangul leen. Ah. ñu nekkul fi pour nga nangul ñu nangul la. ñu nekkul ci pour wéccee ay nangulante. maanaam góorgóorlu leen. nga ngeen di ñëw ci baay baay mooy àllaaxira yéen ñëpp xam ngeen di nekk àllaaxira di ngeen deewul baay mooy àllaaxira xam ngeen ne wala laaxiratul xayrun laka kon nag wadduha wa layli idaa saja wadduha ci lañ dajeeg baay wadduha mooy fajar ak xam yàlla yéen ñi ñëpp ngeen fëggee seen dina àgg ci yàlla rek waxtu woo fajar moo xam tàkkusaan la moo xam timis la moo xam fajar la ci ñun dof yi. yes yes Wadduha mooy bi nga fëggee sa jënd rek ne je pense que je suis ñu ne yaay kat nga ne maay les. jërëjëf waay waay. Wadduha wal-layli idha sajaa mooy waxtu waxtu woowu nag ne yëpp yàlla bi mu lay wax ne maa wadda'aka rabbuka wa maa qala xam nga ne sa borom dàqu la bàyyiwu la. ma ne maa dëgg la seede naa ko yàlla mu ne ko acca wala soog ko ñëw ci kanam ko sa danaa la jox ay waay ay am daal ay futuxaat ay ma ay ay tëjjëf bi yaat fatal sax loolu la kanam nga ne ko est-ce ne ko xanaa dama la fekk ko woon nga doon jirim ku tuxurante ma fat ma fekk la loolu nga réer yi jëm yàlla ji xamoo yàlla nu ma xindiloo sa bët nga xool mu ko waaw mu ne ko kon ku nga toll bu ko dàq bu ko xeeb bu ko doyee daal. te ku dem ba nangu ne bàyyi ñes nag mooy kii xam la yàlla dëgg-dëgg nag jëli leen ko may leen ko kurus neexal leen ko. bokk leen ko utal leen ko oto. mu mu jot càq ko téye foofu ginnaaw bi mu nangu leen ne dëgg-dëgg gis naa lu alam yajidka yatiiman fa aawa wa wajadaka daalan fa hadaa ma fekk la nga réeree jëm yàlla ba gindi la wa wajadaka aajilan ma fekk la nga raf raf la fa aghnaa ma oomal la ci yàlla fa nga ku fa jaar ba nga gis ne fa la toll fala tanhar fala wa ammaa bi ni'mati rabbika fa hadis mooy lii ñuy def billaahi bu dul woon bëgg leen a jëli suñu yoon nekk si leen tur kon jaajëf bàyyi na ma. billaahi. sunu woon départ jël si leen soxlawul dem jàpp. billaahi. gàmmu yeeg sikkar yeeg daayira yeeg conférence yéen rek lañ bëgg a jël si. ndax yonent bi moo wax ne. jullit balaa moo doon jullit dëgg li bëggal boppam mu bëggal ko pare bu ñu di def. moo tax ñuy lal looloo tax lii de. xew-xew yi ñuy def yëpp. pour loolu la rek pour jëli leen. ndax yàlla ne ko wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ma yàlla xéewale lee xam yàlla nga dem ci bokkaale yàlla fa xaddis de bokkaale loolu moo indi tey jotaay bi waaye li ma xam dëgg-dëgg xam ngeen ko loolu mooy loolu mooy jotaay Mawlana Cheikh Ibrahim te dama leen di wax ne seen xel na dal lépp lu fi nit di ootu bàyyi garanti nañ yokku leen bëggeel yokku leen dëggu bàyyi na leen gënal seen ndey seen baay seen jëkkër seen jabar man sax ñi tërëjëf rek mu jëm te ma am lu lu ma si daan fàtte saa yu sax dañu leen may góorgóorlu jigéen yu bëri nee nañ seen jëkkër yi bu leen fréquenté ci sëriñ ndax nee na mooy maye ñaar waaw léegi dañ may jëw si daayira bi góor ñu bëri nag ñoom it dafa am sama benn xaali xam xaali yàlla bu ma leen ëpp waaw buñ may seet si duñ ànd kenn mooy ñëw kenn kenn ki ñëw moo tax diggante boobu du ma ci wax waaye alaaji Ibrahima Niass maa ngi lay wax ne loolu wéttali koo lu ne wéttali koo bàyyi ko parce que mën naa remplacé xarit boo ñàkk bàyyi mën naa remplacé ndey boo ñàkk bàyyi doo ñàkk bàyyi mën naa remplacé alal doo ñàkk Cheikh Ibrahima Niass mën naa remplacé ah! lu mën a nekk nga ñàkk kuyu Allah, ala li laa gis mën na ko te loolu ku ku yëpp ne dëgg la rek yëkkati loxo. am na loolu yëpp ne loolu dëgg la rek nekk. jërëjëf. غربات وصلات الغرامات غربات وصلات الغرامات baax na kon dama leen waxoon ne balaa kat leen wax tey ñu waxtaan. waaw. seede bi benn nit ñi kon Cheikh Mame Ass mooy jël kalima koor gi yëpp nag kenn ku nekk waxtaan maa ngi woon sama biir nekk ci dëkk waxtaan yëpp maa ngi doon dégg loolu évolution la ci xamara bi parce que dama leen di wax ne maa a ñëw xool xadara ba mu sànnee micro kuñ ko jox wax rek sama xel day dal lépp maa ngi yëg ne am naa lu ma leen sama xel dal su ma mënoon ci li ma xam def ko seen bopp yu mu jeex buñ daje rek te yàlla tax dama koy def moo tax na ngeen góorgóorlu xam ne bàyyi bind ñu pour ñuy raam bind ñu pour ñuy pour ñuy doon mbaami kenn wala xaju kenn wala nangam mais déet Cheikh Babi Niass daf ñoo boole yàlla daf ñoo boole moom pour ñu mel ni moom. ndeysaan fu mu newul ñu ne fa. kon góorgóorlu ci loolu. waxtaan yi déglu naa ko. ndeysaan jigéen ñi ak ci góor ñi gis naa seen waxtaan dégg naa leen ma tax kontaan naa trop ci loolu. alhamdulilah kon ñu ngi jox Cheikh Mame As mu jël après Cheikh Ibrahima dégg nga duñ ci mën a tegaat ñu teg ko man tey dama.